waaw mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu bu ci sa nekk sa tur ak sa sant di leen wax ne dañoo tàmbali ay fan yu yees yoo xam ne directeur bu bees bi bi mu ñëwee mois de novembre dafa ñëw indaale loo xam ne ñun travailleurs yi dañ cee tëj yaakaar jël dossier yi nga xam ne moo gën a jàmp ci ñun te ñu war koo régler bu ñu bëggee kër gi jëm kanam mu taxawu ci maanaam ñàkkum gerte gi Sonacos gerte lay dunde bu amul gerte liggéey mënu faa am xaalis mënu dugg at yi yëpp dañoo tumaranke ci gerte donc bu ñëwee jóg ne day fexe nu ñu amee gerte ci nu mu gën a gaawee ak quantité bu baax ñun dañ ciy dal di kontaan parce que leer nañu ne suñu frères yeeg suñu xarit yi nekk ci biti dinañ am liggéey te loolu du yem ci Sonacos rek Sonacos mooy employeur bi industrie bi mais emploi indirect yi itam bari na ci ndax transporteur yeeg chauffeur yeeg apprenti yeeg borom gorgot gar gargot yi même les centres médico social c'est médico sociaux ñoom ñëpp ci Sonacos la ñuy dund ndax seen travail yi ñooy dem foofu di faju ji ñooy jënd ordonnance yi ñooy fay école yi et cetera donc loolu bu ñëwee ne moom dina fexe bi ñu am gerte lu bëri ñun dañ ciy sawar ba pare taxawu ko ci. bi ci tegu mooy suñu machines yi dañoo màgget yàgg nañ koy jooytu yàgg na ay ati at defar tey mu paan suba ngeen toog ñaari fan ñetti fan kenn liggéeyul ñeenteeli fan ba mu démarré mu dox ngeen liggéey balaa mi di mu paanaat wax dëgg yàlla yàgg nañ ci. débrouillé nañ ba sonn mu nag dafa jot pour que ñoom ñu mun a jog changer machine yooyu nga xam ne yi ci gën a euh, néewi at cinq la jamono tubaab yar ba léegi même machine yi ñoom la ñuy defar di refaraat daf pistolet di def lu nekk dañoo sonn nag fi mu nekk ba munatuluñ dem il faut que ñoom ñu utal ñu machine yu bees yoo xam ne moo mun a tax mbir mi continue pour effectif yi itam travailleurs yi comme ni ma ko waxee sànq Sonacos am na ay jamono demoon nañ ba deux mille six cent permanent tey àgguñu cinq cent permanent mais am nañ plus de deux mille saisonniers yoo xam ne ñu ngi fi yaakaar ci Sonacos pour liggéey pour mun a toppatoo seen i njaboot ñooñu itam bu ñu sañoon machines yi ñu defar machines yi gerte am liggéey am ñoo ñu mun leen a embaucher en CDI. ndax ay sénégalais lañu ay borom kër lañu te vraiment sonn nañ ci Sonacos yàgg nañ fi lool am na ñu fi am sa fanweeri at te ba léegi mënuñoo am CDI donc loolu mooy loo xam ne vraiment ñun gis nañ ko te métti na ci ñun syndicat bi ngay gis kenn koo xam ne yéen a bokk fi ngeen dëkk muy saisonnier léeg-léeg 6 mois léeg-léeg 9 mois léeg-léeg 3 mois léeg-léeg 1 mois te découragé wul dem seeti feneen ndax toujours mu ngi toog di dundee yaakaar yaakaar jooju nag la ñu foog ne. kii Kibili Touré ni mu ko waxee nii yaakaar nañ ne ñu bari ñooñu dinañu mun a am CDI moo tax itam ñu bugg koo jàppale ci li nga xam ne moom lay doxal ci plan yi nga xam ne moom la teg plan p 2 mu def aussi présenté na ko conseil d'administration bi présenté woon na ko euh, ministre premier ministre ak ministre des finances ba ñooñu yëpp accordé wul nañ ci léegi mu dem dox ko auprès de du FMI ba ñooñu itam ñëw nañu joxe seen accord de principe tourné ci usines yi xool li nga xam ne noonu la usines yu mel ba pare dellu siwaat nag pour toppatoo mbir mi mais il faut état jàpp ci ndax trois cent six milliards mënuñ koo lebal nit ñi entre nit ak nit institution ak institution ñoo ko mun a jokkalante yaakaar nañ ne état li ci war comme d'accord na ci dinañ ko jàppale pour que mu mun koo am pour que ñu mun a beesalaat yeesalaat suñu machine yëpp defaraat usines yi ñi nga xam ne noonu la gën a rafete ci ay at yu néew. defar Sonacos dans sa globalité mënul nekk loo xam ne jooni jooni la tey defar na EID mooy suñu usine bi Dakar donc raffinage bi ci ay fan yu néew dina commencé waat ñu ngi commencé di jëlaat foofu saisonniers yi nga xam ne ñoo fu war a nekk lancé nañ pour que ak mois de mais ñu defar Ziguinchor ak Kaolack pour que ñoom itam gerte bi nga xam ne moom lañ jotoon daaw ak ren. ñu mun koo nal def ko diwlin ñu am ci diwlin ak tourteau ak li ci topp travailleurs yi itam comme ci loolu la ñuy xaar ñun itam ñu di ci xaar direction direction di ci xaar état donc état il faut que ñu jàppale ñu pour que vraiment li ñu mébét yëpp ñu mun cee àgg comme ni ñu ko waxee sànq aussi ci effectif yi directeurs yi nga xam ne moom la not bi di circuler temps yi onze directeurs centraux la direction général dañ nekk ñoom ñoo yore woon liggéey bi foofu juróom-ñeent juróom yëpp ay anciens directeurs la ñu dañoo changer service mais du question pour que ñu jëlee leen nii yóbbu leen ca kaw pour yokk charge ak yu kenn xam mu nekk xam nañ ne Sonacos yokku charge xëjagu fi tant jotuñu ci li ñu bëgg kenn mënul yokk charge ñetti nit rek ñoo ci nekkoon chef de service amatuñu directeur ñuy réorganiser waat pour attaquer des travaux de modernisation avenir ñu jox leen promotion pour que ñoom itam ñu mun a saytu liggéey bi ni mu waree. donc en conclusion ñu ngi ñaan état mu jàppale direction bu bees bi nga xam ne moom la ñu samp te syndicat bi itam dina ci def kéemtalaayu katanam wax ak travailleurs yi ñaax leen pour que yëf yi mën na dox état bu ci jàppee incha allah yaakaar nañ ne lépp dina dox fekk benn at ñaari at parce que comme ni ñu ko waxee juróom benn juróomi usine la ak benn direction général defar ko ci benn fan wala ñaari fan mënul nekk mais comme EID pare na te foofu la ñuy defee raffinage u gerte bi pour mun a am génne ay butéeli diwlin jaay bu boobaa foog nañ ne fii balaa fin du mois de avril dinañ mun a inonder le marché local en huile d'arachide et en huile végétal parce que loolu mooy la mission première de la Sonacos donc euh, ñu ngi leen di gërëm di leen sant.